man la laamistar fu ma jaar dinaa wayal waa Allo Dakar TV vous faites partie dans notre vie am ngeen man di dimbali xale yu ci réew mi li neex na am ngeen talent yéen yaa leen ñu wettali allo Dakar ca kaw ca kanam am leen jàmm salaam ca kaw ca kanam allo Dakar ca kaw ca kanam